ok question bi mooy mais Bébé Seye da nga fiir moom fiiree. waaw dama fiir ba duma lekk fiir yi. d'accord graw loolu yëpp ay xeetu cokkaas la mais léegi nga am borom kër macha allah. Mm, mhm. di la féliciter de passage aussi. donc eh, di ñaan yàlla ngeen am ci ay njaboot yu barke lépp loo ci bëgg rek borom bi defaral la ko. Ah, parce que nekk xale ci milieu bi teel a sëy bariwul ñun ñoo ngi nii nekk ci. fu mu toll nii eh, demaguñu daal doy na léegi eh, lan mooy changé ci sa vie bi nga nekk eh, ci ci ci ci ci ak par rapport ak bi ngay nekk célibataire ban changement lay am parce que rare nga depuis nga am jëkkër bébé si gisuñ la ci mhm. réseaux sociaux yi te en général mhm. dinañ gis nit yoo xamante ni bu ñu amee borom kër day wàññi lu mhm. bëri ci seen ci seen liggéey bu ñu daan am est-ce que yow ka boobu nga nar a bokk sa borom kër dafa nar a wàññi yu bëri ci sa liggéey ci wàllum feeñ bi daal feeñ yi ngay feeñ yu bëri. Euh, non non man bon sama am jëkkër ñu bëri dañ ma koy laaj ah, lu tax ñu gëj laa gis ak affaire yooyu noonu mais xam nga fifi damaa am chance ndax dama am jëkkër avant corona gi di ñëw. dama am jëkkër rek. corona ñëw waaw donc c'est normal. Mhm. xëy na yenn tournage yi day taxaw nit ñi duñ ma gis. sànq rek tasante naak nit mu ne ma BBC yow de ba amee jëkkër ba léegi gisuñu la si télé bi ma ne ko corona oblige. Mhm. bis bu jeexee rek mhm. maa ngi ñëwaat incha allah parce que man sama jëkkër euh, daf may daf may dimbale ci ci li may def. corona bi ba mu commencé am na benn tournage bu ma commencé woon def mais dama koy wo appel vidéo moo ma naan solal lii bul sol lii. lii lii la àndal lii lee la àndal. <laughs> donc kooku mënul bañ euh, lu may def macha allah maa koy sant di ko gërëm parce que daf may mhm. encourager ci li ma nekk di def. Mhm. Euh, est-ce que nekkul percer bëgg a percer ci milieu bi nga nekk mi milieu showbiz moo tax nga dem série ak promoteur parce que am nañ comme euh, comme comme information que ni borom kër promoteur la donc est-ce que du da nga bëgg a percer ci showbiz bi mhm. moo tax nga def choix boobu ku nekk ak sa choix sama sama sama jëkkër de li mu nekk dina ump Sénégal du ma toog di ko wax. yaa ngi may ah mais non te bu fekkoon dafa naan ñun xam nañ ni promoteur ak leneen lu mu ci def on sait que ni promoteur nga tey yow yaa ngi ci showbiz bi donc yow yaa opté bëgg yàgg ci showbiz bi moo tax nga choisir promoteur. non non fifi affaire bi ci xol la dama koo bëgg. ah taxul de dama koo bëgg. Ah, ndeysaan loolu tamit kenn mënu ci dara. waaw <laughs> ndax donc affaire yi bu fekkoon pour ut koo xamante ni c'est juste pour percer je pense que xëy na amoon na fu fu fu gën a jege. Hmm. waaw. c'est l'amour. c'est l'amour sama xaritu jëkkër yaa ngi fii ay Saalum ñu ngi fii di commentaire maa ngi leen seen xam nga dama leen a bëgg ñu bëgg ma loolu kese la du intérêt. du dara dañ ma ñaanal yàlla ma sëy fi ci sëy bi yàlla macha allah macha allah alors bébé si euh, actualité bi nga xamante ni moo gën a récente jamono ji te yow soleil levant nga nekk euh, mhm. am nga ci sa opinion parce que lu waay xam-xam Massamba Massamba moo gën a xam boppam certes mais ku mhm. nekk am na opinion par rapport ak dara bërki dee bu kaawu neex bi nga xamante mhm. moom lañu doon wax ci affaire u Baye Ely bi ku nekk dégg na ko exclusivité bi man maa ko amoon fii biir diaspora deux cent vingt et un yow bokk nga parce que bokk nga ci ñu ko ci ñu ko gën a jege mooy yaa ngi nekk yaa ngi nekk soleil levant xam nga la mhm. personne xam nga nu mu mel mhm. xam nga comportement wam dund ngeen lu nekk tey jii cas boobu am euh, lan ngay wax sénégalais yi ci Djiko Sanex nan nga yàgg dund ak moom ci période yi ngay def série ak période bi ngay nekk soleil levant. Euh, Fifi euh, man moom ku ma xam-xam ni je triche mhm. nit su ma la xamalul lu baax du ma wax ci yow. Mhm. kon tey saa neex du li ma bokkoon wiiri wiiri du li ñu partagé ay moment moo tax ma koy wax saa neex nit gënu ko. parce que yàgg na ma jàppale ci loo xamante ne nii ma sàmba yëgul ma demba yëgul. Cheikh Ndiaye mooy sama nijaay mais su ma woowee Cheikh jotuma ko Sanex woo wala ma woo Aziz te musuma koo woo ba mu gàntal sama soxla musul am te ay conseil ak lu mu mënti doon daf may woo téléphone ne ma jarbaat ah lii kat bugguma ko lii defal lii di ma jox ay conseil te heure boo fëggee bunta mu tijjil la jàppale ma nag ci yu bëri yoo xamante ne nii xëy na man ak moom la duma ko wax ma koy sant di ko gërëm te mu nekk nit boo xamante ne nii yéenewul doomu aadama lu bon parce que je me rappelle bien bi ñuy def la villa dama ko woo ma ne ko tonton ñun kat dañu bëggoon a def nangam ak nangam la villa affaire yu expliqué ko suñu concept et tout mu ne ma damaa kontaan parce que àdduna nget jaar ci ñun nga xëy am idée bi fierté la kon kooku tey bu nekkoon ne ko soxor daan la ah non non toogal am na ay projet du la mës a bàyyi nga suux du la mës a bàyyi nga jéem a utal sa bopp mais daf ñu yedd nañu heure bo leen ma soxlaa je suis là laajuma leen dërëm c'est ça donc xëy na réeroo amu ñàkk waxtaan xëy na moo am sama olof nag leerul danga may jéggal rek mhm. ngeen comprendre fi may wax waaw xëy na voilà xëy na erreur la ak euh, ñàkk waxtaan incompréhension la koy jàppee. incompréhension donc muy mhm. moom muy ki mu amal amal xëy na problème bi du du luñ ci jublu woon daal de ma mhm. part personnelle. Mhm. Euh, cinéma lan la la apporté. cinéma yow. <laughs> vraiment li ma apporté bëri na parce que bi ma ci bi ma ciy dugg euh, xale laa woon xale bu ndaw mais macha allah dama dama teel a liggéey amal sama bopp parce que à l'âge de quatorze ans voire quinze ans ci laa commencé di jàng di liggéey en même temps di def sama ay petit commerce et tout ndax ci le faisais pour ma maman parce que dama ko bëgg donc tey soo ma laajee lu ma euh, cinéma apporté danga may xaw a laal parce que du fii sax laa war toog di ko wax sama devoir la d'accord mais je réponds juste à la question sama sama première salaire daf ma def loo loo xamante ne nii xëy na sama yaay ba léegi fàttewu ko te fu mu toog daf koy wax mm-hmm. te man aussi fàttewu ma ko loolu moom moo tax liggéey bi dama ko bëgg Mhm. dama ko bëgg parce que euh, suturaal na ma daal ci lu bëri. Mhm. suturaal na ma ci lu bëri ma ciy sant yàlla nag bu baax a baax a baax. macha allah donc bëggoo bëggoo wax euh, li nga ci defal sa yaay en fait parce que mën kay def. non non waaw. ok. Fifi da nga nduroog am saa waaw waaw voilà. Ousmane Koba maa ngi appel yi dañ ko bàyyi waaye dañ bàyyi appel yi eh Kobi Kobi lay nuyu bu baax euh, euh, kii nee na Big Taf nee na cinéma jëkkër la la apporté loolu dëgg laam Big mu ne lan cinéma jëkkër la la apporté jëkkër jëkkër waa apporté la ma monsieur Ndiaye mhm, su la d'accord c'est très important maintenant dañ lay gis soleil levant di la gis Evenprod euh, mën nga ñu wax un peu sa intégration bi Evenprod bale Cheikh ndiay moo la dugal parce que sa mbokk la bi lu la fa dugal <laughs> daa dangaa sopp damay xarmat xarmat moo ma fa dugal ñoom ñoo ma gis soxla ma woo ma fay ma ma dem jouer mhm. loolu kese la demee waaw loolu rek la demee man biñ may woo sax euh, ki ma ki ma ki ma contacté xaw ma ko xaw musuma ko woon gis dañ ko jox sama numéro mu woo ma wax ni ma dafa am rôle boo xamante ne nii gis na ma si mhm. après ma dem fa ñu waxtaan mais nag balaa may commencé waxtaan naa ak sama ay euh, kilifa yi nga xamante ne nii ñoo ma dugaloon ci euh, cinéma bi muy ndiay Ndiaye Cheikh Ndiaye woo naa ko woo naa Aziz woo naa Papa Cheikhou wax leen ko ñu ne ma liggéey la rek demal ma dem parce que moment boobu fekkoon na wiiri wiiri jeex. ok te xam nga njaboot moo tax lu ñu woo rek dañuy daal di daw xarmat. d' accord bëgg dërëm d' accord. Kobi maa ngi lay nuyu Kobi yaa ngi gën a dangereux toppal fële ba ma damay liggéey sama liggéey. le moi tranquille mais euh, ñu gis ne mœurs mœurs day am ay rôle yoo xamante ni dañ koy jox xale yu jigéen ñi yow a nekk ci cinéma est ce que buñ la joxee n' importe quel rôle di nga ko jouer bébé si est ce que pare nga pour jouer n' importe quel Euh, bon actuellement mënu ma wax ni. tey bu ñu la joxee rôle. na mhm. fii dañuy soxla nga tox est-ce que di nga jël cigarette bi nga tox. non loolu tuxkat moom defe naa ne tuxkat lañ koy jox. non mais ñoo ngi gis seen série par exemple mër si ñoo ngi gis waaw. dañ lay laaj avant avant avant jouer dañ lay laaj ba xam suñ la defloo wéyal yi di ko nangu ñu ne waaw certes que euh, cinéma. donn loo xamante ne nii tey boo nee da nga ko opté def rek rôle bu ñu la mënti jox da nga koy joué da nga ko war a joué mais aussi man mm-hmm. damay sóoraale sama famille damay sóoraale sama doom yi nga xamante ne nii xëy na juddooguñu est-ce que yaa ngi comprendre fi may waxee parce que tey euh, bu baax bugguma ëllëg samay doom di màggaale ak ay euh, jugement yoo xamante ne nii man maa leen ko man maa leen ko teg man maa ko opté je devais me sacrifier luñ ma jox ma jouer ko mais de la à di tox déjà mënuma ko sax mënuma nooyi saxaar bu baax sax bay nangu loolu ok ok euh... mm-hmm. Euh, ji nga opté nga opté nekk nga nekk ci milieu showbiz opté yàlla yàlla nag mooy wax ku am kuy teel a am jëkkër ak ku du teel am jëkkër mais dañuy gis ne en général euh, ñu bëri jigéen ñu bëri ñu nekk ci milieu bi dañuy yéex a am borom kër tu vois euh, day prouver que ni c'est pas parce que ku teelul am kër ci millier bi rek baaxoo mais day am ñoo xamante ni par exemple dañuy bëgg teel a nekk responsable. Mm-hmm. Euh, teel a bañ a dugg ci ay détails yooyu noonu. xale ga comme nu ko ñëpp xamee xale bu ndaw nga. Mm-hmm. buñ lay bës meew di génn ci yow. da ngay nàmp ba léegi buñ lay bës rek meew di génn ci yow. waaw loolu da nga bëgg teel a daw teel a daw coowal xale yu jigéen yi wala eh, yàlla def rek mu jot ndaxte milieu bi bari na coow xale yu jigéen ñi ñoo ngi leen di dëkkaloo fu nekk. dëgg la eh, lan moo tax nga def le choix teel a ci ci ci sëy. Eh, fifi man ku ma xam-xam ne duma daw man lépp lu ñëw ci àdduna rek dama koy affronté mais mm-hmm. lu nit ñi lu ñuy naan sëy yàlla mi ngi koy takk ca aras. bu yàlla tuddee ne diw mooy doon sa jëkkër diw mooy doon sa jëkkër bu yàlla tuddee ne bébé si moment nii lay sëy bébé si mhm. moment boobu noonu lay sëy mhm. donc tey du daw wax du daw coow moo tax ma dugg ci sëy dama gis mhm. monsieur Ndiaye mu bëgg ma ma bëgg ko ay parents xam ma samay parents xam ay parents mag ñi def yëfu kilifa yàlla def ma sëyal ko la demee waaw Euh, quel rapport entre BBC et Ndeye Astou Miss Sénégal ok. Mm -hmm. uh, Big Taf na. Mhm. ban relation nga am ak Ndeye Astou Sall Miss Sénégal. Uh, Fifi Astou moom ku ko xam-xam ni sama sama xarit la sama genn wàll la parce que man ak moom Dakar la ñu xamante te bi ñuy doog xamante sax boobu fekk na ci laay doogo a ñëw euh, Dakar. ndax adduna lu mel milieu baa ni mel ay nous sommes des des gens yoo xamante ne nii xëy na ay célébrité la ñu mhm. donc boo ñëwee ci dëkk normal nga xamante fa ak ay nit te ma nit ku mhm. nekk bu ma lay jàpp lan ma wan a tax ma jàpp la fi mhm. man dama dama bëgg sama kenn kenn bañul yaayam mais man dama bëgg sama dama xam ni ma mel ci moom astu su ma ko jàppee yaayam moo tax ma jàpp ko yàlla def ñu xamante di demalante di dikkalante mais tout le temps yaayam daf may woo di ma conseiller lu mu defal astu mi may geestu mm-hmm. des fois sax mu woo ma astu du yëg mm-hmm. bi ma koy jàpp moom taxul du moom moo tax du jëmmam moo tax ma jàpp ko yaayam moo njëkk a tax ma jàpp ko moom aussi mu war ma lu war a tax ma jàpp ko mm-hmm. mu nekk sama sœur nekku nit ku baax donc ma koy ma koy ma nuyu de de de passage mu nekk jàmbaar bëgg yaayam lool nag bëgg yaayam lool respecté ko bokk na ci li gën a tax euh, man ak moom ñu mën a ñu mën a def parce que man am na jikko yoo xamante ne nii bu ko nit amee rek euh, man ak yow bi ñu mën a sori. muy yan jikko sama sœur la mooy genre gis nañ fi jigéen yoo xamante ne yow yan jikko ngay choisir ci nit yan jikko ngay choisir en général ci ànd man bëgg naa nit koo xamante ni nii da nga dëggu. booy ànd ak nit da ngay ànd ak moom te yàlla rek tax du dara loo ciy séentu mën a défendre sa nit timit bëgg naa ko ci doomu aadama nit ku respecté ay parents wam bëgg naa ko ci doomu aadama mhm. man li may njëkk a laale mooy li ngay li ngay li ngay doxalee ak say waajur mhm. man foofu nga ma mën a njëkk a jàppee parce que man dama respecté samay waaju dama leen jàpp nu nu ma mel ñoom la donc man tey sacrifice bu ma mënti def sama àdduna xëy na pour bégal samay samay samay euh, waajur la. Mhm. important alors dis-moi nan nga def ba échappé ba jamono ji ngay am borom kër nga échappé wu ci ay coow wax ju sew wala ay ñu collé le motif ci yan euh, euh, polémique yu am ak genre yooyu noonu ci éducation de base bi nga am la wala danga am ñoo xamante ni dafa nekk dañoo nekk sa ginnaaw di la tegal ay pion Euh, non non man moom kenn nekkul sama sama ginnaaw maa moom sama am sama xelu bopp parce que tey xëy na ñu bàyyi la ak sa liberté warul tax nga ni bukki am na almet tey mu taal dëkk bi man tout le temps damay sóoraale loo xamante ne ñëwagul xëy na am na moment bu ma tolloon maa ngi doon sóoraale su ma amee jëkkër nangam ak nangam am sama ay objet ak sama ay produits et tout ça mani tey bugguma sama jëkkër déggal ma nangam bugguma nit di dem di yàq sama der ci sama jëkkër donc nit nga defar sa ginnaaw bien avant dafa am importance parce que ëllëg du añ du reer lu mat a sóor la hmm. ndax nous sommes dans un monde boo xamante ne nii dafa bëri jugement hmm. te pour nga échapper ci loolu da ngay moytu damaa moytu nag moytu lu ma mën moytu naa lu ma mën xëy na munuma tere nit ñi wax munuma tere mënuma tere ni ñi ñëw naan di wax ci BBC lu négatif que ma dégg ko ma ñàkk ko dë dégg mais dama ciy sant yàlla parce que bu la ñëpp bëggee rek da war a tiit mm-hmm. ci ñiy wax li négatif noonu ci ñooñu nga mën a sukkandikoo pour mën a def lu baax pour mën a améliorer sa vie mm-hmm. te damay sóoru ni ëllëg damay am ay doom mm-hmm. bugguma tey ñuy toog naan leen seen yaay lii seen yaay lii maara day taani bugguma ko moo tax lu bëri dama ko doon moytu damay xalaat daal lu ñëwagul xalaat lu ñëwagul loolu nag moom ma dimbali ci lu bari. Mhm. kii nee na waaw bii daf may neex ay dawaali nee na. Mm. ban cuuraay ngay taalal monsieur Ndiaye. <laughs> Eh, loolu de tama du ko ëpp buum. loolu secret biir néeg la. a ah, dafa am secret yoo xamante ni secret mbedd bi la am secret yoo xam ne secret biir néeg la. ah vie lu tax ñu naan vie privée. xaw ma woon man xaw ma daal ah. dama sëy di wax ah. sëyal di wax naan bii lay taal bee laay taal ba ñu xam say secret. buñ ko xamee après lu ñuy def. man de waxuma. ah dafa am xale yu jigéen yoo xamante ni boo waxee bii laay taal wala bee laay taal dañuy dem suuf suuf la dem sa jëkkër. ah waxuma loolu de. waaw lan moo tax bëggoo wax bi ngay taal. ndax ma koy wax secret biir néeg la. o xam nga danga ne soo waxee bii laay taal wala bii laay taal euh, euh, di nga di nga am na daal loo ci wax noonu. man daal waxuma. mais di nga taal c'est sûr. ah bañ a taal. may taal di so te du ko wax de. <laughs> d'accord c'est bon euh, kii de tubaab la tu dara ni ma ko gisee. kii nee na wax loolu. dama ni am na ñu bari ñoo xam ne seen jëkkër yaa ngi extérieur lu ci mel ni man. bëgg gis suñu jëkkër. te corona leen téye. kon corona dafa war a. yaa ngi appel vidéo yow yaa ngi def tout le temps appel vidéo. ah. yaa ngi def tout le temps appel vidéo. ya de daan nga dégg olof njaay naan roy du nduróog piir jàkkaarloo ak naa loolu a wax foofu olof jàkkaarloo ak téléphone du benn ah lan mooy différence bi jàkkaarloo ak différence ah, ak ak ak ah. téléphone lan mooy différence fi yow fifi dafoo yaa ngi farantu am nga far <laughs> boo ko gëjee gis ak boo ko xam nga gis nga fifi bu ma wax loo xam nga kaay ma wax la BBC xanaa xamoo benn affaire ñu bëri dañ may foog naan di te fekk na bopp bi dara nekku ci. te nit ki nag yow laa yow yaay mën a jàppale nit non dafa nànk dafa nànk rek. wa dafa nànk dafa nànk nit yaa koy jàppale comme ni ngay wax par exemple ma li nga may expliquer comprendre ma. tey jii yow xam nga li nga bëgg a wax man soo ma expliquer dinaa mën a tegu ci raay bi ba comprendre nga ne roy du niroog piir jàkkaarloo ak téléphone du benn. foofu différence nu muy demee non dama bëgg nga jàppale ma ci rek. fi fi ma ne damay wax appel vidéo appel vidéo doyuma. waaw su ma neexoon sama jëkk a toog sama wet ma kottu ko mu kottu ma loolu nga bëggoon dégg. a ah, mu kott la kott ko. waaw. léegi kottante bi. waaw chaleur humaine boobu noonu laa soxla. chaleur ah. ci ay ban booru yan heure en général. 24 heures sur 24